xarawlu leen tuuti ma dellu marsiyaal bismil ilaahi yéen leen tuuti ma dellu بسم الله yéen murid yi Sénégal xarawlu leen tuuti ma dellu marsiyaal sang bu yàlla darajaal Bamba ak Rasulullah nay yonen ba ma dellu man Malik di marsiyaate xalifatub Cheikh Bamba si layaati dina ko taarixal li wa ci laaye ak darajay baayam ba doona laay boole taggak marsiya ndax mu may ma ci darajaam ngeneel weesu xayma cey yàlla cey sëriñ bi maaka waaroo war kat bu ba war na tuubaak daaru ka doon sangu murid yi maj soobu jëm ci boromam yàlla may mahboobu sëriñ falilu dem na ku nekk lum deetu jublu nay lu mu xamba lu ko mooy du jaglu xawsu samaan ba uutu woon Bamba nekkoon xalifatu ba tooge jal ba fekki magam jëf wéetal na gox yi yal na seeru jëf jë ma jooy commercial wax jaloore yi mu fi semal na jëpp foore ma jëkk laa wax waxi Cheikh Moussa Ka ca marché yëpp maam Cerno na baax ga duniyaa bu doon kërug sa xoo diyaale xayrul wara waa Makka duñ ko jaale waaye la yóbbu Ahmadul Makiyu dellu si yóbbu Ahmadul Makiyu du bàyyi sun maam Cerno Ibrahimu kële di xaadimu kële maxdoomu yooye bayit njàmmee ko wax ca way waa demuk sëriñ fali looloolaay lay waa walaay xam naa ni demam gi mbas la ku toog palaasam di xam ni mbër la ngoonu talaata gëfi mbar moo gonte fekki sëriñ bu mag ba ndaw lu bette fukki fan benn rakaati gàmmu jël na fi mbër moo am xoram ta sàmm àdduna war nga nu te war sa bopp te xam naa ni léegi sa baraag yi rab alarba jee ca af sa sin jantam mel na ni jee ca wam sa sin bisam sëriñ Fallilu gaal jeere wax na jëm këram ga ndaw lu biir xel yi gëlëm xol yëpp maase tàng donc yul di tuuru ceri rag wati ak watiiri dafay njooxe jëm ci këram yàlla bu mbir yi sooxe murit akub xaadir akub tijaano ñëpp ko jooyoo sultaanu njàqare tabbi ca xolu ngir ak dem xarit bi seetal mbiri njëndem yu mag ya woon faalub Tuuba jooy nañu ngi xam ni moo di sang ba màggalu Tuuba jooy nanu ngir ni moo di sang ba yib darawa ko wutu rakam jumaandu tabe ak taaram ba moo ñëw këram taaba jox ko mbakke ñëpp teew di seede mbir waagal Sëriñ Tuubaa ña ñépp waaroo bisub keroog rangoy yeyul di tuuru keroog keroog Sëriñ Cheikh Mbacké Seyfu Diine teewet ne mbir ya jooja du cuune nee nañ bisub keroog la xëy di woote waa kër ga dégg lool ndakate nar na joote wér naa pelak kone na dem ci soxlaam sorser yu laab di jokkante ay kalaam bisub keroog dellu na wat luy naanu léegi weyam bi sangu moo maanu solo li wanqaase garab ya def mbaawaar ca digg mag jumaa ja na mag waar bu dara dox fi saa digg Seex Bamba la wax keroog dëkkate lëm na biir ba dal ni murid ngeen abal moo tuuti laaj laaj koloñ turoo ko mu jawaate ba ñu fekk mbar ma soonu ni kell ne fa dafa yëg ab coono soonu lu jël mel ni dafa yëg ab coono daga de waajutu lillaay la xaalibuun ganaaw nañ fabruga yóbbu iliin keroog li xew ci xeeti xar baax kenn ko lim gëm ko doy na ak baax guddik àllarba lañ ko rob fa Tuuba fa penko am di Moustapha baayam ba fekkoon na kees ga ñu wutaloon yaaram ba def ko ca biir Tuuba ko bis ba ma nga mu dencoon ndindi moo ko gaaral ca fan ba kera bañ koy waajal moom lañu fab def ko ca dem fa baayam fop ko fa tuuti moo bari ndam ñeteew gisub keroog di waa jël mbër ma kenn man la xam seen lim raw na xayma rakam sëriñ abdoulahat yaaram ba sëriñ Suhaybu Mbàkke may santam ba ak sibtu bamba doomi am di Moustapha doomi Serigne Bassirou Mbacké Moustapha waa kër Serigne Afe ak Daaru Salaam waa Daaru Muti ñëpp doona malaam ànd ak yeneeni góor yu am ay maxna waaye di leen day waral ab coono Serigne Souhaïbou Mbacké doomi bamba moo ko julee saadix la gëm na bamba seex moo doo xabbaan xaritam di waayam xolam ba jeena keroog ngir diggam ak nijaayam bisu keroog mboolem lu doon malaaka yàlla yabal na leen ñu war xunaaka malaaka aljanna yaa ngi koy sargal naa ko maraban xaw su wara di màggal ci njënd ba wéy daaru salaam dëkk rijaal yu mag ya rabbuna salaam ridaanu ubbil ko wunti yeyul yey xelli misik ba jëpp gëtë ga dal di salli bisub keroog la am fa pencum tuuba ginnaaw robam ba ñuy defar barab ba kenn desatul góor ñaak jigéen ñoo booloo di yuuxu tey wer weri maa ko wóolu sëriñ Falliloo kiisu keroog wu ni mel ci saayir mësula am fa mbàkke ñépp ngay ser jegem sëriñ Fallilu sunu saadix ba ndeysaan moo génni Tuuba fekk say xibam ba dara du sax yóbbu faru wakiilu di jaamu yàlla tey nangoo góorgóorloo ci xaama wasin la feeñ fa tuuba am na ñu naa daaru salaam la booba ca mooma at lëmbar ma génnee daaru sëñ si tuuba mbàkki ñëpp waaru aljuma tey kesu rajab la takku jundu lilaayi dar may bakku nee nañ keroog daam dani buñ ko nampal feeg jant yi buñ ko jox toqantal bisub keroog wax na ne rasululaayi fi ngir juddoom gi doona inni abdoulayi moom la isa waxoon dimim jureel ga raw na buusa buur bam defoon bam mën a waxtu mi mur mën a def keroog sëriñ Falilu mën woor amul lor bi kaxta way naa maaloon nastaaku sala alaykal akramul xalaaqu ba bis ba ñu daal di koy ngénte làmp ni liir bii dana toog baye atte sëriñ bu mag ba moo ko tuddee mu yor ngëneele doon faridun kaamilun Cheikh Bamba ab ju njëm du mooy ni faadilu ba noppi muy mafduulu mbaa muy jaaylu mënula am bu kenn warenteeg baaxam wallahi man xam naa ne sëriñ falilu moo di yaaram wàllu ndeyam boo ca baam gu soobe te ay sëriif la ñu bilaaw yoobi